Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, gars na ngeen def ma ñëwaat ma ñëwaat ani Usman, ani Usman, manit may wër ana usman ñi di ma laaj ana usman leg usman feeñ na usman newon na ku dem ba xamoo fi nga jëm nga dellu fa nga dellu na fa nga fa mu joge won Casamance tenir ñakal fayda bi nga xamne Moussa Fall bëggon nako ñakal Ousmane Sonko fayda wa Casamance ne ko do jakarlo ak mom diko saga and ak say nervi duñ ko def tay lu ko jele Tamba ba bir Ndakaaru gi ñu andi Ousmane Sonko traverser fi mu traverser yépp léegi lan moy suite bi dama len di laaj na Antoine John génn na nee na Ousmane dañu fekk ci otoom ay arme ay lance ak ay nangam dafa def lu dul yoon ñu jàpp ko mais ku def lu dul yoon ñu jàpp la duñ la yóbbu sa kër ah ku def lu dul yoon buñ la jàppee dañ lay yóbbu sa kër ku rey nit ku gàddaay arme pour dem rey nit ñu jàpp la dañ lay yóbbu sa kër al seen prison yi pour lan la bari na ñu ngeen jàpp ci ay vidéo rek bari na ñu ngeen jàpp ci wax rek lan moo Antoine John yow nga mën a Antoine yow lu tax nga naan sa régalu ndey mën a fen Antoine John jàpp ngeen ko jàpp ngeen ay nit ci kàddu kese ñoom Ibrahima Gueye nay leer ñoom Cheikh Omar Diagne ñoom Karim Xuruxaak ñoom nit dof ci ay saaga ngeen leen jàppe Ousmane Sonko da ngeen ko jàpp mu yor ay arme ci biir otoom ngeen ñu seen ndey yóbbu ko këram wàccee ko fa déedéet yóbbu leen ko fi ñuy tëj nit ñi ngeen yóbbu ko tëj ko tey nag léegi li ko jëlee Tamba ba Ndakaaru won ngeen waa Casamance que ni yéen ay jaam ngeen ay traître ngeen Ousmane nag actuellement nii man li ma lay digal mooy nga dellu ci say mbokk dellul ci say mbokk nga toog fa ñii pare wuñ ñii bu ñu toogee di la xaar gis nga tey fi mu toll nii feeñ nga bu subaa ñoom ñëpp ñu continuer nappaaji seen i jéeg Macky Sall nag essayé na mook musa Fall ba pare xool nan lañ la war a def fi mu toll nii kaso lañ jëm ak yow wala ñu rey la à petit feu newoon nga buy rey loxoom na taq mais réew mi ay doomaraama ko yor réew mi ay doomaraama fi nekk di leen seetaan ñuy def lu leen neex léegi feeñ na lan mooy seen solution fi mu toll ni ah Ousmane feeñ na ana Ousmane ana Ousmane Ousmane feeñ na na ñëpp dem na paaji seen jeeg bàyyi injustice bi continuer ci réew mi bàyyi ñuy barricade nit ñi bàyyi seen buntu kër yi mu libre far Ngom ma ngay def politique ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi yor sa mbaboor di dox ci dëkk bi ñu ne Ousmane Sonko yow mi sàccul ñun ñi sàcc ñoo war a dox ci ñan ci kanamu doomaraam yi di leen wër seen yaay yi seen ndey yi seen baay ñoom ñëpp ñu génn di ñu tàccu mais yow gor gudul sàcc gor gi nga xam ne boo téyee arxulaan rakk ko commencement ba début ñun ñu ko xamul ñun ñooy dox yow waroo dox dëkk bi am ay kilifa diine yow waroo fi dox parce que lu tax ay doomaraam a fi nekk ñu ne leen ay yàlla ngeen am ci réew mi kon ñun ñoo fi war a dox ñun doomaraam yi waaye yow waroo fee dox yow gor léegi su paree ñun ñëpp ñu toog laajte gu metti gi woote gu gi ku ma ci woo ma banque la ci gat bu ma kenn woo bu ma kenn woo li leen ci mooma ci bu réeree da di laaj damay laaj buñ ko feeñalee li ma ci xam maa ngi koy def di ko wax li ma ci mën kon ku ne na toog ci ruqam tàngaan ko coow li comme ñun coow la ñu ak jooy nañ jooy bu fi wax bu kenn woo aw ma lu ma li ma xam yëpp wax naa ko avant coow li laa génn wax leen li ñu nar bu ngeen demee ba toog Anita Diop nekk ci biir réew mi di ministre Macky taxaw ne leen damay taxawal ministre en gouvernement de combat illa a réussi c'est un gouvernement de combat jàpp nañ ko Anita Diop toog di leen foowe moom rek moo yeyoo ci télé yi nekk ci Sénégal yëpp Anita Diop moom moo yeyoo génnee vidéo yi ñuy humilier Ousmane Sonko dugal ko ci biir car dugal ko seen oto yi toj cott ndayam yooyu toog saaga ko ba doyal wax ko lu ko ne lu leen neex ba pare génnewaat ko ñappaat leen ko ndayam ngeen kattaat sa nday toog di nappaajewaat seen i jekk moo tax ma ne yéen ay dooma ngeen ñu dëgg seen nday ngeen ku torox ci réew mi yéen la boo ko laalee boo ko laalee joxel ordre joxel ordre ban ordre lay joxe ba ñu jógee dem Casamance pour def fa naka sudul noonu doomi gor yi dañoo jóg taxaw dañoo jóg taxaw ne ko fii kenn du ko fi laale tay mi ngi non traversé wat demoon len deukum traversé pour dugg sen deuk Kaolack romb deuk yo xamne ne kenn ku ci jog taxaw neena gor la feug deun mo upp mbolo mbolo mi limuy jeriñ mbolo nor noor lan lay jeriñ ana lebu yi ana moli yi ana béykat ana nappkat yi ana marsa ambulant yi ana maçon yi ana ñi muy kassal sen droit ana ñu ana ñi ñu nangu sen souf ana ñu boo ko laalee boo ko laalee jay nit rek ngeen mën buñ ko waree toroxal ngeen ñëpp ngeen ñu seen day toog jaawale kook seen jabar yi doomu xaraam yi toog di xaar seen koy yi lii mooy seen xalaat léegi génn na kat leen ndeyam toogaat ñu xaar mu wax ñu consommé waat wax ji tàccu xaaraat beneen musiba ñu defaat ko dem barricade këram di leen wan ne fii la doomaraam ëppee biir ndakaaru la doomaraam ëppe moo tax ku jéem dara biir ndakaaru am ko lu ñu bëgg ci biir ndakaaru am ko boy romb tamba rek doomu xaram yi gëna a sonn ci monde bi bo leen di romb rek lu la neex nga am ko gor ñi jog di xex doomu xaram yi tok bu lepp soti won tay ji kenn du leen jitt ci hôpital yek euh, marseille tay ñew na mi ngi ni legi nañu tok xaaraat mu kebetu bu kebeto ba pare ñu tacc dem kattante ji togaat xaar yéen ay doomaraam ngeen rek bala may dee woote laajte waa APR yaa ngi dox ci réew seen ndey yi ñoo leen di tàccu seen baay yi ñoo leen di tàccu lan moo tax ñoom ñu war a mën a am droit dox ci réew mi te ñun mënuñu am droit dox ci réew mi te ñu ne ñun ñoo leen gën a ñoo ëpp ñoo leen gën a sakkan Antoine Diome di ñu fooye Alita Diop di ñu fooye Macky Sall saay bu naree def musiba toj cottu ndeyam génn réew mi dem yoonam ñi ko ngemb ñu ngi ci réew mi toog di woote diine saay bu xëyee di kat ndeyam lor lor askan wi dëkk yëpp di dem mu xëy di ñu tegal musiba doomu xaram yi diaspora bi bu ñu xëyee ñoom tamit kat seen nday taxawaalu libéré libéré libéré ñag yi ku ci dem ci consulat kat nday consulat bi bu jigéen ñi xëyee roof seen tuuni ci jiin ba mu fees dem di xool ku leen doxaan góor ñi tamit kat seen nday génn seen bisit di xaar ku ñu doxaani nii rek lañ ko nar a jàppe dox ci mbedd mi ku nekk tus ngal say tuñ waa papa libéré libéré ñoo doomu xaram ñu continuer di def li ñuy def Si lañ ñu kat nday suñu carte d'identité un mois six mois la wara def ñu tegal ñuko un mois dégo ambassade bu toj dégo ambassade bu toj li nit da ci mëna dëkk li da ci mëna dëkk nit da ci mëna dëkk ay nit ñoo xam jox leen am réew dëkk yépp di dem ñun ñu toog di taasoo ko fecc ko tàccu yuuxu rek laalé ku di génné morso ku ne di wut way bëgg dund ci kaw doomu jàmbur ji bakañ bakañ ñoom jala ñu ne ñu nga ca génn di joxe information da ko jaratul ñun ñoo ñu suñu ndey ñun ñooy ay doomaram ñun ñoo toj suñu cott ndey ñun ñoo baaxul ñun ñoo dul gat ñun ñoo tekkiwul dara ñun la gor war ta taxawaal suñu kanam parce que ñun ñooy ay doomaram parce que ñun ñoo dul cott ndeyam ñun ñun duñu dara ñun làmmiñ bu rëy rek ku jóg toroxal ñu ñun ñuy wax waxi pétrole ay doomaraam nekk suñu biir ne ñu dee duñ ci dund duñ ci foo duñ ci noos duñ ci xoole suñu yoon ci carte d'identité bu baax suñu yoon ci ay passeport yu baax doomu xaraam yi nekk ci réew mi tongale ñu wét te ñu ne ñun ñoo leen ëpp ñun lu ñuy jëriñ suñu ëpp gi lan lay jëriñ lan lay jëriñ lan lay jëriñ wax ju bari génne leen lii génne leen lale Antoine Diome fooy nu mu ko neexee Anita Diop di wax lu ko neex ñuy def lu leen neex seen télé di def lu leen neex ñu kat suñu ndaw nekk ci mbedd mi mbéb mbéb mbéb mbéb mbéb mbéb mais ba kañ ba kañ ba kañ boo leen ko jëfee ñu xëyaat génn fële andi ñu kooy data teg ci kaw assemblée bi teg fu ne. fu ñu teg ay ministre yu ñuy ay ay député yu ñu jàpp tëj ay maire yu ñu jàpp tëj lépp lu ñu jàpp tëj suñu booy ci mbedd mi ñu jàpp tëj ñun ñëpp ñu kat suñu ndey toog di xoole wax rek wax rek xëpp nañoo xëpp xëpp xëpp ba kat ndeyam jëriñul cottu ndeyam xëpp bi pour lan la pour lan la pour lan woote bi kat ndeyam jox ma lii pour lan la woote bi kat ndeyam yónnee ñu lii pour lan laajte information pour lan la xamal la rek dem kattante ji ñëwaat toog toog ci mbedd yi werante fu nañu werante ay doomaraam tim ñu di def lu leen neex lu leen neex ñu def lu leen neex ñu def jàpp gor deful dara ngi di ko toroxal topp ci réew mi sàcc suñu alal ay ay dossier yu dossier yu dossier ñu ñu épingle rek ñooy dox ci dëkk bi ana Mamour Diallo ana Mansour Faye alalu mbas mi anamu ñoom ñooy ñoom ñooy campagne ci diggu réew mi di def lu leen neex di dugg fu leen neex di taxawaale ci këru diine yi fu leen neex ñu dugg gor taxaw sàccul yoole sàcc rek la def tey askanu yëpp libéré yoon bi Moussa Fall nekk ci réew mi di def lu ko neex njabootam bi daggoon nu mu leen neexe waa APR yëpp di taxawaal nu mu leen neexe senegal yëpp il sera cool douce benn moment bu ndaw rek kenn ku nekk dem toogaat sa kër xaaraat beneen coow nit ñaa ngay xaar développement développement liñ leen joxoon pendant douze ans defuñu ci dara foowee ñu rek lañ bëgg foowee ñu rek buñ paree yëkkati ñu aji saar indi suñu kanam mu fecc suñu kanam pare maayi ñes accueillir ko et se la cool douce ku leen laal nag ñu toroxal la réew mi ndax gor war na fee taxawaalu réew mi Ousmane Sonko man dama lay laaj ndax réew mi amati nga len loo fiy prouvé Ousmane dimbali ñu wax ñu dëkk bo bëgg dem dimbali ñu wax ñu dëkk bo bëgg dem ñu kët si ko nga dem tok fa japp sa njambur ak sa njabot dimbali ñu ñaanal lool rek nga genn dem sa yoon fi gor waru fee taxawalu parce que ñi duñu ay nit ñi duñu ay gor ñi wax rek lañ mën wax rek wax rek wax rek wax rek boo ubbee ku nek mbap mbap mbap mbap ñu cotiser def lu nek joxe doome ram yi nekk ci réew mi ak taxawal rek lañ nek ci mi ndayam ñu ko def ci bo am mbeur taxawal legi ñu diko toroxal nga gis ñu jaay seen bakken tay seen avenir ay seut ay dom lu nek ñu ngi mu ngi ni di jaar seen suufu bakken Moussa Fall ne len du fi amé Antoine John ne len du fi amé ñun dañuy dund waye yeen du ngeen dund saay buñu waxé wa barñi tok saay buñu waxé wa respect tok saay buñu waxé wa Dakarou yépp war nga kep baali yek fu nek ñepp tok buñu joggé yëngal tuti ñu roy seen ñaari doom ñu continuer wat isra sera cool douce yéen a xaar magal ak gam bu joté na ngeen ci roy seen bop parce que lool ngeen am ci aduna amulen leneen leneen du ngeen ko jot bu fekkee ni ngeen nara doxale leneen du ngeen ko jot waji waji amna luma torop amna luma metti torop wallahi amna luma metti torop amna luma metti torop sama xol metti na waaye lii la yàlla dogal lii lii rek la yàlla dogal lépp ñun la rek lu ñu bayal ci toolu yàlla bi moom la ñuy góob lu ñu bay ci toolu yàlla bi moom la ñuy góob ndax dëkk bu naqari bii imaam ndaw gënuñu ko ci dëkk bii lañ ko toroxale ñun ñëpp suñu kanam kon ku yebu préparé sax juróom-ñaari mètre percal yàlla na leen yàlla yërëm yàlla na leen yàlla yërëm yal na len yalla xara arjuna yal na len yalla xara safara di moins yen yal na len yalla xara safara ak seen serigne fofu moom xamna ku sa tundi lak fecc lay gëna yomb di nga mëna fecc bu baaxa baaxa baaxa baax nek baax ci kaw suuf rek xol bu bon bugut bugut problème katante, am problème lo ko yore nek ci rek nek ci rek nek ci rek ba xey ñu tak sanday ba nga dëgër yobbu ya yal na len yalla yobbu safara yal na ñu yalla yobbu safara ñun ñep ñun ñëpp safara nar naa xumb ndax matt fu mu nekk fecc koy gën a boyal du ngeen ay nit billahi du ngeen ay nit yéen ci esclavage rek ngeen di deewe yéen du ngeen ay gor du ngeen sax ay nit Casamance lu ne lañ leen wax lu ne waaye taxaw nañ dëggal seen bopp ba Antoine Diome Moussa Fall munu leen a am face à face waaye ba mu jógee Casamance laa xamoon li ma xam ne leen ma ngay dem de waaye mi ngi fekk ji ay doomaram fa lañ ko toroxale fa lañ ko defé lu ne fa lañ ko jiiñee lu ne coono bu nek fa lañ ko ko tegee ma ngay wat nak bu yabo nga belende sa yaram bi belende sa xol yaangi dem fekk ja ay doomaram ne ku bëy ko jënd ku ray yaayam rek dugal bir jolof ku bëgg jënd ku tëdde yaayam demal bir jolof ndakaaru mom ba fa yeggee rek gis lepp fala wulee ñaay ay doomeraami kese falaa juddoo de waaye li ne sama deret bii may xeex ak moom booboog léegi du bari gor ñu du du bari ñu mu rëcc de dina bari ñu mu seey seen biir deret de ay doomeraam lañ kenn xamul lii lan la kenn xamul lii lan la ay nit yàlla teral leen jox leen nguur ne leen jiite leen askan wi ñu lànk sàcc seen alal ba pare topp gor d'accord naa sanga sàcc wokk sa doq rek yoxosu ne pat waaye sàcc ba noppi topp gor